waaw responsabilité yi du ko du ma ko jox euh, promoteur bi duma ko jox tamit ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo ñoo force de sécurité bi li ma koy jox mooy supporters yi ak tambour major bi nga xamante ni moom moo def loolu ak moom mbër mi moom Papa Sow ndax tey mënoo préparer sa combat ñu dàq ko dàqaat ko presque ñett at ba desu lu dul jours yi ngeen ñëw 9 combat yi jàll mu des dixième bi mu yow ak cité cité di préparer wu dem ci géew bi di la xaar yow ngay dem di atté ay kat yi ak yu da fa ron concentré wu ci lambam tay ji fofu nonu mu dem wu fa dara ndax dafa dem fekk jambour te bu fekkon fu mu waron yam la yam gëm ni combat bi dina jeex ak jamm sa dara du ci am. Euh, acc ko mum du yoon parce que fu ndon du kenn togn rek nga généraliser ñep ndax kër go dem da ngay gis xalé yi dañuy yaru ñi xamadi ñee sop àdduna moo doxee nono. ñi nga xamante ni def jalgati nañ yoon nañ leen yon. ci yoon bu ko defee ñi nga xam defaguñ ko dinañ ci jàngee quoi pour ëllëg loolu mu banaam te ba pare arène bi niñ ko defaree baaxul amul sécurité fu nit tëb da ngay sibil a dugg si biir enceinte bi ba ci kaw sax wuurul buñ la fa bëmaxee da ngay ajeeku ci gis nañ booy ku ci daan déconné buñ la daanee nga déconné gis nañ ko récemment combat bi la passé gis nga ñuy damm ay seize di ko sànni commencé wul ndax combat 2 ak gis nga la fa ba Alioune Seye dañ ko blessé ci finalement mujjeewul bari lamb ji non lañ ko annulé parce que nak jonne CNG bi taxaw ci quoi. Euh, compétition bo gis manam vainqueur day am vaincu fay am waye nañ ko def ci anamam def ko ci anam bu sel xam nga def ko ci anam bu bu rafet su ko après euh, xam nga euh, ku ni sa ci ak Salam. parce que ñun ay doomi sénégalais lañ ñun ñooy gaañante suñu biir te loolu dafa ñaaw ñu ne doomu sénégalais gaañ na ki nga xamante ne moo di moroomu doomu sénégalais loolu nag ñaaw na ñaaw na trop ñaaw na trop rafetlu ma ko benn yoon te te te kenn suñu nii tamit ñun rafetluwu ko ah mais acte bi nu ñu ko gisee dafa ñaaw dafa ñaaw ba pare Papa Sow moom it moom moom laay waxal tamit quoi ndax moom moo bàyyi ay kiwam dugg si tëggkatu euh, si tey ndax moom moo fekk te moom moo njëkk a dóor loolu sama kanam moom moo njëkk a dóor kii bi ndax boobu ñu ngi toog tiim a dóor jaal ni ànd ak yi daw dugg si biir dóoru waaja ñu ñu sànni ko xaw ma xiin lañ ko sànni xaw ma mu daanu coow li jeex mooy loolu daal ñun daal su ma seenoon daal xam nga làmb ji nañ ko teg si yoon. ñun jeunes yi ñun ñoo war a defar si nga xamante ne moo di suñu dëkk par contre ne ñu nekk fii nii di di rayante si suñu biir non loolu loolu rafetlu wu ma ko. ñun ñun artistes yi ñun dinañ si joxe li nga xamante ne moo di suñu àq ak suñu yelleef maanaam lan ñu wax la ñu yàlla jagleel suñu yàlla suñu borom maanaam suñu baat yi la ñu may ñuy woy ah te kon dinañ ci woy dinañ wax ak li nga xamante ne moo di askan wi ndax loolu moo nekk li nga xamante ne moo di suñu en tant que artiste en tant que porteur de voix te incha ñu ngi ci ñu ngi ci ñëw bu soobee yàlla